laqad alqaytu asa tasyaar yi lay wax sànni naa sama yetu dox mooy am naa wusuul léegi yooyu du yetu ko dara yooyu bu ko bëggee jëfandikoo si mu ngi mel ne ku bëgg dellu si waat si mu dëkkoon te foofu mënatu faa dellu si ndax àgg na fa sa borom ba su borom di ko ganale ganale goo xam ne du am ab ganale na ko ba moom ci boppam xeeti teraanga yi léem na bëtam léem na noppam léem na xelam xelam dellu nekkatul ci dellu si fi mu jóge woon mu laaj nag sama borom kon ña ma bàyyi woon sama gannaaw te ñu toog ak ñoom loola ñooña luy seen mbir suñu borom mooy ña ma ba ma jógee ñene woon ñoom du ñu dem ak ñene woon dañuy dem ñu ànd ak man wala ñu bees suñu yoon wala ñu ànd ak ñeneen ñii dem ba ci yoon wi ñii dee ñii dem ba ci yoon wi lafañ ñii dem ba ci yoon wi gumba ñii dem ba ci yoon wi tële ñii dee ci yoon wi mu ne waaw kon ñooñu ana lan muy seen xalaat mu ne ñi nga xam ne ñëwuñu génnuñu pour ñëw ànd ak yéen ñëw jëm si ci man wala wala bil xuruja laa abdu lahu uddatan walakin karaha llahu imra'atan fa sabbatahum mu ne waaw ñi nga xam ne dañoo dee nag ci yoon wi te ak siwuñu léew man yaxruj min baytihi muhajiran illahi wa rasulihi suma yudrikuhu lmawt faqad waqa ajruhu ala llahi mu ne waaw man nag sama njabootu bopp ña ma fa bàyyi te mënuñoo ak si luy seen xalaat luy seen mbir mu ne ko yow mi ñëw doy nga ni nga ñëwee ba ma defal la lu buur say bët danaa la may loo xam ne dana leen doy ñoom ñëpp ba kenn ku ci nekk danga mën a may ku la neex ba kooka doy la te duñ jé duñ yëngule waaye ñi nga sëriñ si nga xam ne nag ñoo xam xeeti xam-xam yooyu di ay tegtal yoo xam ne ñoom ñooy bunti yërmande yàlla ci kaw suuf si di àggale mbindeef yi ci yàlla di xettali nit ñi seeni daraja wuute am ci ñoo xam ne boo doxee ba dajeeg ñoom siyaare leen am ci ñoo xam ne boo tegee sa bët ci ñoom dootoo texee di mukk te suñu borom dootu la bindal bàkkaar am ci ñoo xam ne boo leen yëkkatee les bant rek am ngërëmal yàlla te xam nga ni ngërëmal yàlla nekkul daraja ji gën a jege ci texe ndax nit mën na texe gépp texe te du àgg ci am ngërëmal yàlla xam ngeen ne ngërëmal yàlla mooy tax nga mën a añal képp ko ànd ak yow xam ngeen ne sëñ bi ci njaal biiram bi nga xamee ne seet na boppam lépp loo xam ne suyoox yi am nañ ko mu am ko ci wet gu ne mu gis ne nag li mu liggéeyal yàlla doyu ko ndax am na maqama moo xam ne benn góor yàlla musu koo am te maqam moomu moo luqi bëtam ba tax na mënatu la nelaw maqam moomu bokkul ak maqam xutbul xaws ndax maqam xutbaani la du ñàkk ci jamono kon ñu bari am nañ ko ku fa am ku ko am ba jóge fa dañ koy jox keneen ndax secret la boo xam ne mënul ñàkk ci adduna waxtu wu amatul ci adduna adduna bi tukki suru la boo xam ne ku wuutu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci adduna moo koy yenu te bu ko yenoo moom ci boppam bépp mbindeef boo xam ne ak maqam boo mën a am ci yàlla lépp boo tooyee boo teewee cëpp xadara ba xef sax boo ko defee ci lu dul ndigalam ñu sàbbi la ñu sël bu la rekki sa ngëm waaye maqaama boobu ñu bari woote nañ ko ñu seet ne maqaamam xatmul wilaayat yi itam am na ci gaa yi yàlla yi ñu ko woote kon maqaam boobu itam kenn rek taxawul ne man maa ko am keneen amu ko ndax xatmul wilaayat yi Muhiddin ibnu Arabi woote na ko gannaaw Muhyi Muhyiddin ibn Arabi am na beneen Chazali bu ko woote gannaaw moom it am na Ahmad Tidiane mu woote ko Muhyiddin ibn Arabi biñ ko laajee luy tegtalam lu tax mu wax mu ne moom am na ko dafa neewoon moom suñu borom xamal na ko ko ba mu ko njëkkee di xamal dafa dikk taxaw ci kanamu Kaaba gi Kaaba gi ñëw wër ko juróom-ñaari yoon ba noppi dellu fa mu newoon birig yi nga xam ne moom lañ tabaxee kaaba gi birig bu ci nekk di jógee bérébam ñëw wër ko juróom-ñaari yoon dellu place am ba mu des bérébu benn birig bérébu benn birig boobu moom ci boppam suñu borom def ko muy birigu wurus mu dem tooge place boobee ñu ne ko yaay xatmul wilayati ñaareel bi alxakimu turmisi dafa waxoon ci kitaabu xatmul wilayati ne xatmul wilayati bi bu ñëwee sama tur lay tudd Muhammad ibn Ali moom la tudd moom turmisi nee na bu ñëwee sama tur bi tudd te danaa laaj juróom-benn fukki laaj yoo xam ne xatmu bi rek koy mën a tekki keneen du ko mën a tontu ku dul moom bu ibnu arabi ñëwee moo tontu laaj yooyu te moom moo tudd noonu moo kii tudd noonu tur woowu nga xam ne moom la turmus yi tudd waaye ba mu fi jógee itam loolu mu wax lépp Cheikh Ahmad Tidiane gis na ko waaye wuute na woote na xatmul wilayati nee na mooy moom mu des nag benn kon xatmul wilayaati kenn rek doonu ko xutbul xawsi kenn doonu ko maqaamay ab daal yeeg awtaat yi nuqabaawu yeeg nujabaawu yëpp amu ci benn boo xam ne kenn nit mën naa taxaw ne man rek a ko mas a doon maqaamam nag asna xadim li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xadim rasul ba ñu xamee lislaam ba léegi benn mbindeef mosu koo woote te borom buñ ko wootee li tax mu ne mooy borom mulkul aalil baaqil qadim jaalani asna xadim la wax bi nga xamee ne gis na maqaama moomu nga xam ne borom day bokk ci bayatu ridwan ca taxta sajarati borom laqad radiallahu anil muminina jooju daf cee am cir te borom day fekk day mu nekk kopp koo xam ne kii dog boo xam ne mas nañ koo sóob ci lislaam dana ca dëbb ba am ca wàll woo xam ne kenn du ko ci ëppale borom day taxawaay taxawe taxawaayu alxuraan taxawaay boo xam ne bu mahdi yu ñëwee du ko weesu mu seet ba nga xam ne maqaama moomu mooy mi nga xam ne mi ko yéem ci maqaama yi bi nga xam ne jaar na ko ci bépp bunt buñ ko war a jaar niñ ko misaale ne moom la moo tax mu ne ilay yaqaadalaahu maalam yakun te nga xamal ko ne dañ koy jaay te liñ koy jaayee ñi ko mas a waxaale ñépp muy xej yàlla yi kenn ku ci nekk bi ñu la waxee li muy jar da ngaa daw moom mu jënd ko bi mu ko jëndee ba noppi ba mu jarit daf koo wis nga xam ngeen ne bi mu waxee ne minhu shtarallahu ka dafa waxaat minhu shtarallahu laj bi mu waxee minhu shtarallahu laj gannaaw fanweer ak ñett yooyu itam dafa jaayanteeg boromam yeneen ñeent yoo xam ne bokkul woon ci fanweer ak ñeent yi xam ngeen ne yi mu jaayante it yoo xam ne yi benn mbindeef boo xam ne wàllu yu kese nga mënuloo koo tàmbali àggale ko loolu moo taxoon ñi ci des ñi ko nangu ñëpp daw kenn mënu ko mosu koo àggale bi nga xam ne moom àggale na ko it dafa daal di ne wa fi madxihi jaawastu kaaban wa xastaana xam ngeen ne kenn koo xam ne ci saxaabi yi saxaabi yi la yoon yi la bokk mu dib saxaaba benn mi def sañul ne yem na ak saxaaba yi ndax Cheikh Ahmad Tidiane bi nga xam ne wax na li ko yàlla defal ci salaatul fatih ak maqaama xatmi ak kaayu aarifina boobu bi ñu ko waxee ne da nga xanaa da ngaa fab sa bopp teg ko ci kaw saxaaba yi dafa ne yàlla tere saxaaba yi su yeenu dox ak sunu dox mi ngi woote wuutee ne mellantaan ak picc mi ñuy wax printemps ni mu gaawee ni printemps gën a gaawee mellantaan yooyu la nu saxaaba yi gën a gaawee dox xam ngeen ne kon saxaaba yi kenn du leen diir mat kon bu sëñ Tuubaa ne wa fi mat yi jaawastu kaaban wa hasaana ka ka am ibnu Zuhayr bokkoon ci saxaaba yi sëñ bi ne suñ borom def na ma ma bokk ci ñi gë ma bokk ci gën a ku may ki gën a kawe ci ñi nga xam ne ñooy liggéeyal yonente bi ba nekk ci xodamaa rasul sallallahu alayhi wa sallam ne itam suñ borom def na ma ma raw ci tagg yonente bi kaab ak Hassan ibnu Sabit Hassan ibnu Sabit xam ngeen ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna ruuxa alqudsi la yu as la yu ayidu xasaana maa kaafaha an nabiyihi bi nga xam ne waa Quraysin seeni waykat yëpp dal nañ ci kaw yonente bi di ko xas te xam ngeen arab yi ni fi ñu teg way ku ñu xas ci way xam ngeen ne wayu arab moom arab yi dañoo fonk way day dal di siiw wëndeelu ci adduna bépp di ko wayantoo ba tax na képp lu nit kawe kawe kawe lu darajaam kawe kawe li ko nit ñi fonk fonk buñ ko xasee xas xas wu ñaaw ci wayu arab arab yi jël jël loo ko déggandéem ko kenn ku nekk dégg ko way ko day daal di nekk ku suufi fi bët nit ñi ba kenn dutu ko teg fenn nga xam ne kon wayu xas way wu ñaaw ci kuy woote ci la gën a bone ndax day tax nit ñi wan ko gannaaw ba dootuñu ko fonk day tax xam ngeen ne waa jooju ñu naan labiit nu rabia leen acha la woon sax acha bi nga xamee ne waykat bu mag la moo mujj ci foxoonu shuara yi bi nga xamee ne tagg na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xasida gu mag a mag te fas yéene dem Madina fekk ko fa waa Makka dañoo dajale alal ju bari ne ko ñu jox la ko te nga bañ a dem ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ko jox sa xasida gi biñ ko joxee alal jooju moom it mu daal di nangu bañ a dem waaye ca déwén sa mu ne bu ma dundee ba déwén moom danaa dem bu ma demee damay jéblu joxe way yi ma way yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca déwén sa la ba ba mu daataan dem la ko gëleem daaneel mu dem ca la doxee dee ba demul nga xam ne kon ñi nga xam ne nag kon daawoon nañu xas yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci di xas muhajiroon yi di xas lansaar yi ci seen i way ci arab yi nekkoon na lu métti ba xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon na ci waykat yi ànd ak moom koo xam ne kii daf leen di tontu ki ko njëkk a proposé ne ma tontu leen te fekk ki ko njëkk a xas bokk ci giir banu hashim gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk mu ne ko boo koy xas na nga may def man sama bokk ci giir gu mu bokk mu ne ko danaa la sepp ci ñoom ni ñuy seppee karaw boo xam ne dafa wadd ci suruuf suñuy mooñ bi nga xamee ne Hassan ibnu Sabit tàmbali na nag di tagg yonente bi di xas ñooñu di dindi li ñu waxoon di way way yoo xam ne moo gën a rafet gën a neex gën a gaaw a siiw way ñi ko doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bég na ci ba wane ne ruuxal qudus te mooy sidna jibril dafay ànd ak xassaan di leeral xolam di leeral xelam di ko sa li muy wax muy way bu fekkee ne kon sëñ tuuba radiallahu taala anhu wax na ne ci tagg yi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jéggi na ci kaab ak xassaana nu gis ne ni bi mu waxee ne way yi mu way yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñetti xaaj la wax na ne li mu woyoon bi mu bi mu demagul ci géej gi yëpp suñu borom nanguwu ko xam nga ne suñu borom nanguwuli sëñ Touba li ñu wax ne xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabina fekk na muy way woo xam ne moom la mu tuddee lu suñu borom nanguwul bu ko boroon xejji beneen xejji yàlla wayoon day daal di nekk loo xam ne dañu naan am na ci ngërëmal yàlla lu mag waaye moom bi mu ko seetaatee ba mu weesoo foofu weesu boo xam ne raw na diggante asamaan ak suuf bi mu seetaatee na mu doon woyee loola dafa cee rus ba nga xam ne su sañoon du ko way mu dellu woyaat xam ngeen ne gis bu daf ko way ñaari yoon muqaddimaat daf ko way xam ngeen ne muqaddimaat bu njëkk ba tàmbalewul woon alhamdulilah xaqil mubin dafa ne woon hamidtu rabbal alamin hamdan yadumu kulla in musalliman ala an bi kalkali wa bil fami loo xam ngeen loolu la waxoon xam ngeen ne muarib bi itam daf koo wayaat way yi bari gis ngeen xam ngeen ne mu layyun sudur boobu daf koo defaat bi nga xamee ne àgg na ci waxtu wuy bind waxtu xaraf bu mu bind day jànloog yool ba xam na mu toll xam na ca yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëggee xam na ca suñu borom bëggee xam fi nga xam ne fa la sunu yonente bi ak suñu borom teg xaraf yooyu muy bind ba suñu borom xamal ko ne ko xaraf yi ngay bind moom laa gën a moom laa gën a fonk ci lu dul alquran bu hadis xamal ko ne waxtu woo xamee ne bind nga gën xaraf waa araf dañuy bég ba jaayu di fettasu ba xamal ko ne waa jigéenu óorul xay ni ci àjjana sawa yii la ñuy wayantoo te moom la ñuy bëggalee képp koo xam ne bokk na ci ñi nga xam ne suñu borom màggal na seenu texe ba bu ëllëgee ñu di la bëggal xasida yooyu la ñuy waye xamal ko ne mooy yor drapeau bi ñi nga xam ne ñoo tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam soo ko may bi nga xamee ne may na ko wirdu qadir war may ko wirdu tijaan may ko wirdu saasili ba mu boole wirdu yooyu yëpp mu may ko weneen wirdu boppam mu mel ci biir wirdu yi ni nga xam ne boo seetee saa si nga xam ne ci biir ajjuma moom la ñu tànn nëbb ko te nit ñëpp di ko seet te yàlla xamalu ko lu dul ay xejjam yi nga xam ne benn baat lay doon ci wirdu wi mu ànd ak ngërëmal yàlla loo xam ne ngërëmal yàlla li dafay correspondre ak li nga xam ne mooy misaaju wala bi nga xam ne ci moom lañ ko njëkk a jaarale ak coonoom ak lim am ci ngërëmal yàlla suñ borom booleel ko kon wird yi nga xam ne moom la indi yépp jox ko ay xejjam joxati ko weneenam woo xam ne musu ko woon a jox keneen may ko itam wane ne ko ñoo ñëpp doon na leen naa la seenu baax doon la ku ci nekk daraja jëm amoon jox naa la ko booleeg sa daraja yi bopp xam nga loolu bi nga xamee ne am na ko mu wane ne moom am na xarit am na seede am na it waruwaay am na it tànneef loo xam ne lii moom la tànn xaritam am na ñoo xam ne ñi ñoom seen bopp ñoo ñëw takk ko xarit ak ñoo xam ne moom moo leen takk xarit ak ñoo xam ne yàllaa ko booleen ñoom di leen laaj ëllëg ànd ba ñu gis ne saa yi ak bëccëg yi ak guddi yi yëpp dañu doon njëkkante ñëw di ko takk xarit bi nga xam ne am na martaba boobu xam ngeen ne mu waxee ci faatat xilaami léegi bil xayrin insha allah yëg fi nii dayrin mu waxeeti bayit wa ba ne guddi yi ak bëccëg yi yépp dañoo daw di njëkkante ngir di ma takk xarit ndax xam gi ñu xam mbégum sama borom ci képp ku xaritoog man bëccëg yi ak guddi yi di ay seedeem yoo xam ne ñoom ak malayka yi nga xam ne ñooy raqib ak atit te nekk ci mbaggum ku nekk di bind li muy def ak li muy wax yeneen malaayika yoo xam ne malaayika yi yërmande rek lañu du ñu laal safaan ba du ñu gisee ku ca jëm ñëpp di ñoo xam ne ñii dañoo seede dañu koo seedeel seede soo xam ne bu ëllëgee dañuy taxaw ci kanamu yàlla seede ko boole géej ga nga xam ne moom la xutba bu leen wanee gannaaw ñu mu wàññi ko di leen dëfale xarit googu nga xam ne moom lañ ko takk di leen xamal ne nangu naa ko nangu naa seen xarit googu mu defale leen loolu suñ borom may ko maqaame saxaaba yi nga xam ne dañu ne woon bunt bu ñu tëj la ndax dootu amati ndax mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam julli mbindeef yépp gàntu lislaam ñu jaay seen deret ak seen ñaq jaay seen adduna jaay seen nooflaay ak seen bànneex jaay seen njaboot jaay lépp lu ñu amoon ngir jënde ko yàlla fas yéene dee nga xam ne seen deret bu yemal xiyaame dañ koy peese midaadul olama yi ak rangooñ yi way ragal yàlla ñi nga xam ne du ñu nelaw guddi dañuy jooy ngir ragal yàlla fanaanee julli ba biir set gaa yooyu nga xam ne seen puur yi ci gëli gimmi ñi fas ya yomal xiyaam dañ koy peese darajay maqaamam waliyu wu mat puur yi itam may génn ci seen gimmi ñi fas ya gën a diis maqaame wàllu yu yooyee ñu yégal ko ci ñoom yemul foofu dem ba ne mu ngi mel fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ñaar ñi nga xam ne ñoom la dëkkaaleel ci madinatul munawwara muy sidna Abu Bakar ak sidna Umar nga xam ne bu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wéyee ñaay ñaar ñi gën a rëy mbir ci jullit ñi mu wane ne fa yonente bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi demee maanaam maa ngi demee fi moom ni Abu Bakar ak Umar di laan te xam nga ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom daf ma tànnal ca azal ba mu bindagul dara dañul di ma tànn maag Alioune ba mu agsi fi nu agsi dañul di ma tànnal ay àndandoo ak i soppee ba fi ma toll tànn ma tànnal ma Aboubacar tànnal ma Omar kon sëñ Tuba ñu boole nañ ko ci muy lu doy waar bu nekkoon mën na wax ko deux heures këpp yaakaar naa ne kon mën na noo waaw kon nag yàlla def na waxtu fi mu toll xaw na sori te danoo am itam yu nuy xaar ca fan woon gannaaw nu war faa dellu léegi a tax nu war a kon dagg waxtaan wi li ñu ci bëggoon lépp ak li yéene jëm ci amoon lépp àggul ndax mi nu waxee woon sànq ne nu suñu yaram neexul waaye nag jotaay bi ñu fi toog rek yéene ji mat na sëkk ah li may waxoon mbir mi ma am ba ndokkeel leen it ci seen toogaay bi ni sëñ Saali waxe bi muy tàmbale wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi ah dañu wax ne wàll yu rek suuf su mu nekk suuf sa daf koy tàqamti ko waxtu fa jógee suuf si day jooy ndax bëgg ko gis ngeen ci suuratu duxaan yi fii suñu borom di wax ay gaa yoo xam nee na asamaan ak suuf duñ leen jooy nga xam ne kon am na jëmm yoo xam ne bu ñu fi jógee asamaan yi ak suuf yi dañ leen di jooy comme maa bakkat ali musman wala du ñeneen la ko wax kon jëmm joo xam ne fu mu teg tànkam rek garaat lay doon ca suuf sa ba yomal xiyaam fu mu tëdd barkeb suuf soosa ku fa nekk am nga tawfiix am nga xéewal boo xam ne yàlla la ko jagleel kon dëkk bi nga xam ne mooy Touba dëkkub barke la dëkkub ngërëmal yàlla dëkkub yërmande la suuf soo nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu tëdd na fa suuf si takkal nañ ko garaat boo xam ne benn rek la kon képp ku fay yeewoo ah nga xam sa bopp yéen nag ñii sëñ Muntaqa ak sëñ Saalix mi taxawee yéen di ay xaleel ñu fas leen yéenee jaar la ci yoon bi yoon wu rafet bi du yoon bi nga xam ne moom la alxuraan tëral te yonante bi sallallahu alayhi wasallam wan ko mbindee fii xam ngeen ne alxuraan day lu màgg la bu fi jógee àdduna tukki xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam nee na daañu ko jël si daañu jël si alxuraan ci dënni góor ñi jël si gi ulama yi wax nañu ne du caagéen ñi ko xamoon dañu leen koy fàtteloo waaye ñi ko xamoon dañuy dem ba ñu faatu te ñi ci des duñ ko jàng xam ngeen ne loolu tàmbali na tàmbali gi mu tàmbali tiital nañu bari ba tax na ñiy jàngale alquran nga xam ne ñoo amee amaanatullahi bi ko lëre gi yàlla fas lan teg waa kaw suuf ñiy jàngale alquran ñoo ko dese ñoo ko amee buñ kon nag bu jamono walbatikoo war nañu walbatikoo ànd ak jamono te war nañuy boole seeni xalaat war nañoo ànd ñi nga xam ne noonu la ñu defoon tey muy séminaire bi mu bëggoon koo fekke lool ci sottante xalaat bi sottante xalaat bi lu am am solo la ndax fi mu nekk am na ay jëmm yoo xam ne ña nga fa sori seeni xel xalaat lu dul xam nañ ne lislaam alquran a ko yor parce que nañu yéenee far alquran alquran mokkal ko fardu kifaaya la xam ngeen ne ci daara rek la ñu mën a mokkale alquran waaye xam ngeen ne lekkoon yi arab yi sax baax na lool dana jàngal nit ki arab dana ko jàngal lislaam waaye wattu alquran dafa am méthode boo xam ne ci la ñu war a jaar sunu mag sunu maam yi ba ci nun ñii niñ ko jànge woon ba wattu xam ngeen ne dañ daan laxas wacc sa kër neeg sa kër bàyyi at yu bari nga di ko tumuraanke di xiif di mar xiif bi du la saf mar bi du la saf rafle wi du la saf tilim ji du la saf boo tawatee sax doo faju da ngay dem rek ba wér ngay jàng ñu say nelaw jeex na ndax da ngay jàng guddi ba ñun ñëpp nelaw boo gëmee ba tuuti njël di bëgg a jot ñu yeela nga continuer di jàng ba suba nga xëy yalwaani boo yalwaanee ba noppi boo ñëwee da ngay liggéey di jàng xam ne guddi yëpp da ngay tari da ngay yeewu njël di tari ba biir set xam nga ne loolu day mooy tax nit mokkal alquran léegi nag bi nga xamee ne jamono changé na changement boo xam ne nit ñi ñi ngi ñaawal ñi jàng alquran ndax tumuranke bi ñuy tumuranke ndax xamuñu xàqi alquran xamuñu tumuranke googu garaat yi ca nit ñi nit koy jëlee bi nu demee ba nit nit ñi nag àgg foofu ci ñàkk xam ak walbatiku jamono ak ñu walbati seeni aada walbati seeni xel ba ñu mel neneen noo xam ne jullit waru ko war a mel nu dem ba nga xam ne xale yi ci seen bopp jëb jublu nañ ci leneen muy muy buntu pop buntu pop yi di kàmb goo xam ne dañ caa waaxu jëm ca te duñu wàññi ko te dañ cay daanu rek te buñ xamoon kàmb gi ni mu xóote ak ni mu ñaale ak ni mu bone ku leen ca jubale wala nga ba max leen ca daañu la bañ daañu la mere loolu bu amee ñi nga xam ne nag dañu wax ne yàlla lañ fi nekkal am liggéey bu rëy te mooy gàttandu xale yooyu dogale leen ñu war a bañ a daanu ci kàmb gi ndax képp koo xam ne ki yaru nga ci pop ak moom sa bopp ak libre boo demee ba weesu pop fekk na fagguwoo woon dara ci torox rek nga jëm te yaay dund dund gu metti dund gu naqari dund gu ñaaw fekk jamono ju bon joo xam ne ña nga ca fekke woon ñu xiir la ca loolee dootuñu ko duñ fa fekk du leen fa fekk duñ ca nekk yow na nga tumuranke kon ñi jàngale alquran war nañuy daje di sottante ay kaddu di nas seeni pexe war nañu itam di préparer dong yi ñuy jàngal alquran ngir ëllëg bu ñu génnee amee gànnaay gu tax kenn du leen mën a walbati kenn du leen mën a dévier te loolu li koy waral mooy mooy ñu di leen xamal alquran ni mu demee ak ni mu mel di leen xamal li mu diglee li mu tere di leen xamal njëriñ li di leen xamal ki ko jàng ni nga war a mel di la xamal ab jullit nan la war a mel di la xamal itam ab murit na mu war a mel di la xamal fas-fas bi mu war a fas di la xamal ne li nga amee moo gën lépp lu luñ yor di la ko wan bëgg la koo naree mu wóor la ne li nga yor mooy liy jëriñ fii mooy liy jëriñ ëllëg te képp ku ko amul bu ëllëgee da ngeen taxaw taxawaay boo xam ne dana la ñee te dana rëccu lam ne woon te dana xam ne niwul ci dara balay dee yow mi yàlla jagleel loolu xéewale la ko boo ko sàggane wala nga umpale ko benn nga mel ne ku yor perub jamaa nit yor xànjar xëcc ko ba mu melax mu melaxate ko ci say bët wala ne la ne la léey baax fel la perub jamaa ba wadd nga dal di topp ci moom di ko ñaan xànjar bi benn mu dagg sa jox la benn mu bañ la caa jox dara nga wacc nga sa jamaa ba noonu la mel alquran mooy wurus wi mooy jamaa bi ku ko amul amula dara ku ko am nag am nga lépp war nañoo xamal kon xale yi yàqu-yàquy jamono ak fa muy jóge ak mbubb ya muy sol ak forme yi muy dikke ak nañ cay mucce te ñu di leen préparer préparation bi itam njàng xam ngeen ne jamono bi gannaaw dem na ci toll foo xam ne nit ñi xaalis war nañ leen ko ba ñu gis ko ba mënuñu koo muñ te jaral na leen lu nekk loo ko dendaleel ñu dem ca xaalis ba wacc loolale loolu day daal di indi wayafuk l'islam woyofuk alquran ci xoli nit ñi ndax nit ñi buñ demee ba ku leb dootoo ko fay te doo xalaat mukk ne da nga ko yóbbu ci sa tëraayu bàmmeel doo xalaat mukk ne yomal xiyam da nga taxaw ci kanamu balance yi ñuy peese say jëf ba mu bari ñi nga ameel xaq ñëw di jël xaq yooyu le ba la nga amoon jeex ñuy fa bàkkaar yi ñi nga ameel xaq di la ko teg duñu dootuñu xalaat loolu ñu dem ba yooyu yëpp woyof fi xol ki ko gëmoon sax mu woyof fi xolam ba mel ne lu dul ñëw mukk ba muy jëf jëfi koo xam ne day mel ne gëmu ko bu ñu nee wax naa ko ba tàyyi bu saa di taxaw du fekk ku gëm yàlla ci kaw suuf tekkiwul ne nit ñi dañuy bàyyi jullee woor wala dañuy génn ci lislaam day tekki ne dañuy dem ba ngëm gi dootu foor ngëm gi day woyof ba ñu mel ne ba yéefar yi mën leen a jaarale fa ñuy jaarale ñi gëmul ba nga xam ne jullit ñi dootuñu wuuteeg ñi dul jullit dara jullit ñi dañuy ànd ak ay yéefar di xeex ak ay jullit jullit bi bu dajee bu ñaari jullit dajee wala jullit ak ku dul jullit du am sentiment boo xam ne moo koy xiir ci gën a farag jullit bi wala gën koo yéene jàmm wala dimbali ko jullit bi day dem ba nga xam ne li muy seet ci nit ki du doon ak bëggam yàlla wala ak xam yàlla wala mbokk gi mu mbokk moom jullit day seet ci moom rek njëriñ li mu am wala xam gu mu ko xam bu yàgg wala ni mu koy ni mu yaakaar ni kee ko jëriñ wala ni mu yaakaar ne kii mën na koo lor saxaaba yi day ba nga xamee ne xam nañu alxuraan dëgg te yonent bi sallallahu alayhi wasallam yar leen ba ñu mat ñooñee ba bi ñu fi jógee ba jeex am ña topp ci ñoom naka noonu su la neexee nga ne sëñ tubaay it ñi mu àndaloon ak ña ca sës melowoon nañu melo woo xam ne dañuy dajeeg nit soppi ko waaye soppi leen xel xalaatu ko soppi leen xel xalaatu ko ndax xamoon nañu ne li li ñu am moo gën adduna ak li ci biiram mu wóor leen it ba nanguwuñ koo wecceeg lenn kon ñi jàngale nañu seet lépp loo xam ne dana mën a dimbali ñiy jàng ba ñu mën a jàng ci seeni xalaat bu ñu dajee xam ko dana yomb ñu xamal leen it ne keneen ku yor leneen du dara xale yi ci gën a bari woyof nañu bopp woyof ba bopp goo xam ne naw nañu waa soowu naw goo xam ne buñ gisee ñu def lu ñaaw sax ñu topp leen ca gis ngeen koo xam ne daf naan xaw ma zulu la tudd xaw ma wat fii ba mu wat fii wala mu dem baramu wala mu takk bandal wala mu def loo xam ne lii kenn du xam lu muy niru te àndul ak xelam xel mi ko yàlla sàkkaloon mu di xeewal dindi na ko sànni fële di seet rek nit ñu mu naw ba nga xam ne bu ñu dem àll ba woon jiwoo ko it mu def ko xam ngeen ne loolu dara gën koy wan walbati ko wàññi ko jaa delluwaat fu yées fa mbon yem mooy loolu le l'islam moom dafa mel ne far nañ ko ci xoli nit ñi jaralatu leen dara dara dara dara dara dara mu ne day lu ko waay jënd rek jëru ko ndax li ma wax faral wax ne daray adduna jarul daray àllaaxira nit ku nekk rek da nga toll diggante boo xam ne lépp loo defoon lu dul li jëm ci yàlla da nga ko tuub da nga ko rëccu te da nga ko da nga ko rëccu rëccu bu weex ndax nit ki nee naa leen ka gën a xéewlu ci adduna gën a am daraja nit ñi gën koo fonk lu ne ñu jox ko ko lu mu bëgg ñu jox ko ko di ko waxal lu ko neex bis bu tëddee ci lalu sukkuraat mboolem xéewal bu mosoon am dana ko fàtte mboolem fu mosoon a jaar ci bànneex dana ko rëccu ndax loolee dexoon digganteem ak yàlla ba fàttaloo ko yàlla fàttaloo ko tëraayu bàmmeel gaaf lay doon gon ci moom goo xam ne bañ koo gisati sax te dugg safaraa koy gënal balay balay bakkanam a root war nag nit ki war nay dellu si xelam war nay fàggu di xalaat ëllëg war nay fi mu toll di seet jamono bi fi mu toll di seet li ci baax di seet li ci bon waxoon naa leen sànq ne leen alxuraan borom xel yi rek la waxal inna fi zalika la zikra li ulil albaabi inna fi zalika la zikra li man kaana lahu qalbun inna fi zalika la ayatin li ulil albaabi ila axiri yi dafa bari borom xel yi lu leen xel di jëriñ yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf daan wax diw day yaakaaroon naa mu gindi ko ci lislaam ndax yàlla joxoon na ko xel kon xam ngeen ne borom xel yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na aksaru ahlil jannati bulhu wa innama illiyuna li ulil albaabi boo boo demee àjjana ña nga fay fekk ñi ci gën a bari mooy borom xel yu gàtt yooyu nga xam ne dañ leneen rek yàlla am na te loo def daañu la ko fay mooy yónni yonent bi alquran wax yàlla ñu daal di gëm loolu topp ko bañ ko bàyyi mu ne waaye nag borom xel yi nga xam ne ñooy seet di seetantal di teqantal nit ñi fiir bu seytaane fiir ñu teqalee ko ñooy ay li yoon maanaam ñooy daraja yi gën a kawe ci àjjana ñoo fay dem kon nag kenn ku ci nekk na nga def sa bopp nga di soldaaru l'islam di soldaaru yoon wi nga nekk l'islam mooy ngën ji diine yi yoon yi mooy ngën ji yoon yi kon nag ku yàlla baax yi ba yóbbule ci boo sàgganee yaa ko def sa bopp boo sàgganee yaa ko def sa bopp fii mu nekk nag mu ngi mel ne gàtt yi gétt gi te lii ñoo ëpp fuuf ak bukki yi ñoo ëpp fuuf bëy yeeg xar yi xam ngeen diggante bukkee xar li xew nag mooy yées nii bukki di def xar lii ñii def ñii moo ko yées fuuf daa yóbbu la safara ci lañu taxaw temm yóbbu la safara ba mu leen leeree fa lañ jëm te mënuñoo wàññiku ni iblis waxoon suñu borom rek ba mu ko ne bind nañ di safara la aqu danna lahum siraataka mustaqim summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajid aktharahum shakirina suñu borom iblis dafa tëkkoonteeg moom uxruj minha mal'uuman mad'uuran la'amla'anna jahannama minka wa man tabi'aka minhum ajma'iin génnal biir diwaanu malaayika yi rëbb naa la yow yaa ñi nga ñi la topp ñëpp yéene feesal safara ëllëg jaar leen ci yoon bu bon wi dara leen dugal ñoom ñëpp safara suñu borom ne ko ah lu dul nag sama jaam ñu sell ñi dëgg ñi nga xam ne def naa leen ñuy samay jaam ñoo ne doo leen mënal dara mu ne ko ay laa ibadaka minal muxlasina waaye bu keroogee day xuloom ñoom ca safara daañu njëkk a xuloo bala ñuy dugg safara ñii njëkk a xuloo ruu sax ak yaram daañu xuloo ruu ne yaram yow daal ba ma duggagul ci yow damaa xamoon yàlla niroog malaayika yi xam sama borom di liir lawhul mahfuz bugguma lu bon xaw ma ko lu baax rek laa xamoon di dundee sàbbaal yàlla ak màggal ko bu ma duggee ci yow laa dal di dugg ci xam bànneex xam adduna xam daraja xam yooyu yëpp yaram ne ko déedéet man suufas kese laa woon xaw ma woon dara dama daan sàbbaal yàlla ndax suñu borom nee na wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba ma dajeegu la yow nekk gu ma jëmm di am roo dama daan sàbbaal suñu borom rek suuf rek laa woon ak doj booba man musuma mooy yow kay bi nga dikkee ci man dugg ci man nga ma soog a dugal li ñoom ñaar ñu dal di werante taxaw fi kanam sans borom ku ci nekk ne yow yaa tax ma lii dal ma ba ma war a dem safara suñu borom ne leen waaw lafañ bi ak gumbo bi dañoo dikk ci tool bi lafañ bi mënu la yootu meññet mi gumba gi gisul meññet mi gumba gi dal di tungoom lafañ bi ah lafañ bi di di wat toolu jaamur bi di wat ba wat toolu jaamur bi yëpp ñoom ñaar ñu séddoo ko ana ku ci tooñ ku ci ku ci ku ci sàcc toolu jaamur bi ñu ne ah ñoom ñaar ñëpp mu neen yéen ñaar noonu ngeen demee yow ruu ak yow yaram yéen ñaar ñëpp fa xuloo bu njëkk baa goog xuloo bi ci des nit ñi ci àdduna kilifa yi ak ñi ñu yilif daañu xuloo fu ñuy xuloo jàng suuratu saba yi yéen ñi nga xam ne yéen lañu toppoon day te jaaru leen ci yoonu lislaam jaaru leen ci yoonu jub yi day yéen war ngeen noo wàññil ci mbugal miinu yàlla teg ndax yéen nu yëbbel yi fabal leen ne tuuti fahal antu fahal antu muxnuna anna min azabillahi min shay wàññil leen nu ci ñu ne eew waaye lu tax nu du leen wàññil dëgg la wala du leen wàññil dara ndax moomunu leen woon yéen a moomoon seen bopp dañ leen a woowoon rek ngeen wuyu suñu topp nu waaye moomunu leen ñu ne bal makru leele wan nahaari sax kay yéen mi ci dugal seen pexe guddi ak bëccëg ngeen du fexe rek ba dugal ni ci lu bon lii bal makru leele wan nahaari kon nag am pexe ku àndul ak sa xel ba pexe dugal la ci musiba boo ëllëgee da nga ko réccu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngeen jéggal nu waaw beneen yoonati rek moom bind la boo xam ne nee ñu àdduna bind bu dul mokk la kon dog bu dul mokk mukk la dañuy dëbb rek ku ne da ngay bëgg dëbb rek ba bañ fiy jógee waaye nag borom jàngalekati alxuraan yi rek moom ba tey ma insisté ci rek nañuy fexe ba ndax nit ki mën na jàng alxuraan ba mokkal rek jóge fi daal di dem am complexe te complexe mooy yées ki complexe day miim ak ndongo miim gu muy miim ndongo bi ci lay jànge tux cigarette bu mokkalee tux cigarette daal di jàng naan la ca des bu mënee la ca des daal di seet ñi muy àndal ñeneen ndax complexe rek bañ ko ne ko yow kaay ab ji yarub dongo bi nga amee fekk na lam nekkoon ci lu baax faxas nañ ko ña borom moom dikk mu dikk ak akuk baaxam ñu ne nañ ko nax ba dindi bu baax yooyu mu àndal mu mel mu mel ne nun mooy ni iblis def rek waaye nañ fexe ba ñi nga xam ne ñi ngi jàng alxuraan ñu am lu ñuy jàpp loolu itam ci pexe yi la ñu am noo xam ne bu ñu dajalee seen bopp fexe ba kiy jàng alxuraan du ñee kay jàng leneen ba noppi itam gànnaayal ko ci xelam ak yee ko ba nga xam ne itam bu fi jógee itam kenn du ko mën a féréwli du am itam genn complexe loolu moom sëñ Murtala am na ay xalaat yu rafet ci yu ma wet wat googu am na ay projet yoo xam ne ah bu ñu yàlla dimbalee ba mu matal ko ñeneen ñiy jàngale alxuraan ak ñi nga xam ne ñi ngi yare ñoom itam ñu jaar ci yoon yore bu soobee yàlla daañu àgg foo nga xam ne kiy jàng alxuraan ka ko jàngul daf koy ñee ndax daf koy gën ci biir gën ko ci bitte daf koy ëpp li ñu xam ñoom te bëgg ko te mooy adduna bi daf koy ëpp moyens yi ba noppi gën koo formation ba noppi gën koo jege yàlla nag gën koo xam sëñ Touba gën ko koo jege ëpp ko ngërëmam gën koo am ngërëmam ndax xam nga ne sëñ Touba kat ñi ànd ak moom it yemalewul kii góorgóorloo kii góorgóorluwul yemalewu leen ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam yemalewul woon ñi gën a gënoon a góorgóorlu ñëpp a góorgóorlu waaye yemalewul woon dafa ne woon al asharatu mubasharatu bil jannati fukki ñëpp la njëkk a tànn ci saaba yi ne ñii seen àjjana wóor na kon yemalewul ñii ci xulafaa wal arbaa bu ngeen seetee ñeent lañ ci yemale woon nit Ababakar ñi ci def bu ahlu badrin tam yemu woon ak ñi ci def ahlu saqifati gannaaw bu loolu ahlu bayatu ridwaan yu kon kii góorgóorlu moom kii gën gën lu moom mooy gën ba faaw rek ñaar bu ñu yemee képp kii di jéem a gën kii jéem a gën ay gën rek te nag li ñuy wax effort góorgóorlu moom lu mu tuut tuut doo ko xeeb nit yaa ko rawee ki nga xam ne defu ko kon nag xale bi wala mag mi fu mu toll nay góorgóorlu di def loo xam ne rek dara lay doon loo xam ne dana ko fa nekkal ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatuh
ma ne yéen mbooloo mi toog
bu ma ko dee misaal du ma wax lu dul li shaayir bi waxoon ci nizaamul mulki bi mu koy defal marsiya mu ne kaana al wasiru nizaamul mulki lu'lu'atan yatimatan saataha rahmanu min sharafi badat falam taarif al ayaamu qiimataha faraddaha xayratan minhu ila sadafi mu ni taru jamaano boo xam ne amul morom amul lenn bi ko suñu borom yëkkatee jamono jim dajeel suñ borom fiire ko fonk ko ba delloowaat ko ca mbar ma mu nekkoon sëñ Basiru noonu la fi gaaw a jógee noonu la demee
jërëjëfati sëriñ bi kon ñu déglu sëriñ bi sëriñ Saalihu Mbakke mu wax ci ay kàddu ndax sëriñ bi ni mu leen ko waxe woon wérug yaramam mayu ko mu mën a toog ba bët set waaye yéeneem weesu na yendu fi fanaan fi suba yenduwaat fi di waxtaan ak yéen ngeen di ko laaj mu di leen tont ah kon ñu jox sëriñ Saalihu mu wax
asalaamaaleykum maratan oxra jërëjëf sëriñ Sam sant nañ la bu baax gërëm nañ la li taxawoon nga ñëw fi matal nga ko liñ doon seenu gis nanu ko yàlla nanu yàlla dimbali ba boole nu ci ñi nga xam ne dañuy dégg wax ju bu baax wax ju baax coono yi itam métti na waaye nag bi ñu tuddee Cheikh Al Bachir di la di la nga ñëw wax nit ñi ci lu aju ci moom ak buñ jàng alquran loo nekkoon da nga ko bàyyi sëg bi rek sëg lépp seetatoo ko ñëw wax feeg nun wax ju baax nii yàlla lay fay ak sëriñ Tuubaa mi ngi liggéeyal léegi nag sunu bokk yi nga xam ne ñoom la yàlla joxoon xalaat ju baax ji jox leen cawarte ji jox leen yéene ji bañu nas nasin bi daje fi nit ñëpp dajale fi nit ñëpp mbir mi mel nii awew yoon nii gannaaw suñu gërëm ñoom ñoom itam ñi ngi gërëm mboolem ñi nga xam ne teew nañu fi ndax daanaka ñëpp teew nañ fi lépp ci njabootu xaadimu rasul ñi ngi fi ñoom ñëpp ku ci ne sa tur ak sa sant góor ak jigéen ñi ngi lay gërëm di la sant bokki xaadimu rasul itam seenu njaboot li ci ëpp a ngi fi taalibe yu mag yi ak taalibe yu jébbalu gannaaw bi ñoom ñëpp itam ñi ngi fi ñi ngi leen di gërëm di leen sant ci seen i coono ak seen i yitte yi ñu bàyyi ñëw jàppale leen bis bi ndax nag nit kenn amul loolu sa bis kon nag ku la fonkle sa bis fonk na la kon nag noo ngi leen di gërëm te di leen sant te di leen ñaanal te ñaan sunu boroom ci darajay borom bis bi muy Cheikh na Cheikh al Basir suñu borom jéggal nu suñuy bàkkaar defal suñu mbir te bàyyi nu fi ba nu mën a dajewaat ci beneen occasion bu demee nii waxtaanaat ak moom te ñun ñëpp nu fekke ko ñëpp muj ku nekk am na nga bëgg kon nag léegi kenn ku nekk fa nga toog na nga jàng fatiha ak salaatu ala nabi yéene yool bi Cheikh na Cheikh al Basir te tef li koy sa kanam danu tàkk
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا